jëmi bâtiment bi moom mooy façade bi ni ñu ko génnee euh, latéral bi euh, ñaar fukki mètre la si si sur vingt ci biir sur sur vingt yi fukki mètre ak juróom-ñaar ak genn wàll yaatoo fukki mètre ñeent ak genn wàll mooy doon salle bi euh, li ci des dañ ciy génne escalier bi jëm ci kaw loolu day jël moom itam ñetti mètres yi ak ñaari mètres ya genn wàll moo jëm ci étage ba ca kaw juróomi mètre yeeg genn wàll ci lañuy ñuy génne euh, salle de bi nga xam ne fi la ñuy waajale ñam yi ci la ñuy génne salle de chambre froide ba nga xam ne bi yu sedd ya fa lañ koy def ci lañ génne toilette yi euh, ci lañ génne escalier bi jëm ci kaw euh, ci lañ génne wanag yi nga xam ne ñooy dend ak self service bi mu am boo xam ne bi day mën ñetti mètre ak nangam ca ginnaaw loolu bokkul ci biir vingt euh, mètres yi waaye da koy wër nekk li ñuy wax euh, euh, maanaam véranda lañ ko mën a tuddee ci wolof foofu la oto yi bay jaar wër ci ginnaaw ci wetu wetu gànnaar gi ngir mën a dugal ñam yi foofu. xayma bi nag coût bi architecte bi des na mu génn waaye mën nañoo jàpp ne moom lu mu néew néew dina romb cent millions cent cinquante millions jëm kaw daal dana ko mat diggante lépp àggee.